léegi jàpp na le 13 septembre euh, assemblée nationale tënku ci yaakaar nga ne moom Ousmane Sonko dina dem defi ji déclaration de politique kanamu député yi bu ñu yeggee da ngay wax amaat nañ beneen date. waaw amaat loolu moo gën amoon nañ date lu tax date bi président jëlul décret lu tax mu bind leetar. delloo naa la laaj bi yow mi nekk foofu la waroon njëkkee. ok ndax assemblée nationale. kenn mënu ko defaral agenda bi muy liggéeyee kenn mënu ko président de la république mënul organiser agenda parlementaire lam man mooy wax assemblée nationale agenda bii de sama dossier yi laa bëgg ñu njëkk a xool loolu lañ tuddee am priorité sur l'ordre du jour euh, am na sañ-sañ convoquer session extraordinaire waaye amul sañ-sañ fixeel assemblée nationale ban bis lañuy ñuy apprécier lan examiner bii texte wala bii texte wala bii projet loolu amul ci sañ-sañ heureusement mu comprendre ko bind lettre waaye bind lettre bi am na lu ko gënoon mooy def nañ moroom yi daan def dañu nekk ci régime de euh, collaboration des institutions déclaration de politique générale premier ministre moo koy def mm-hmm. pour man yoonu président sax waru ci woon ne premier ministre mënoon na saisir assemblée nationale ci wax comme nañ ko daan defee man de damaa bëgg a def sama déclaration de politique général wala président de la république woo premier ministre euh, président assemblée nationale ndax c'est dialogue des institutions la. Mm-hmm. ne ko premier ministre de nee na ma dafa bëgg def déclaration de politique générale. lu ngeen ci xalaat mooy première question deuxième question moom dina na dafa bugg ñëw le 10 wala dafa bugg a ñëw le 11 wala dafa bëgg ñëw le 13 ci weer wii ndax dina jàppandi ñaar moo mun a am président assemblée nationale mën na ko wax ne ko waaw date bi di yaakaar naa war naa baax mais bàyyil ma dellu waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy groupe parlementaire ak président ya su date bi baaxee daan la revenir dinañ ko togg ba mu ñor te ñi ci biti duñ xam ne ñu ngi préparer datu déclaration de politique générale parce que moment de rencontre la entre le gouvernement ak l'Assemblée nationale mais comme da ngay dem kër jàmbur mun nga ne ko dama fa bëgg ñëw bi sàngam kookee bu paree ne na waaw bu parewul mu ne la bu doon sama sax nga xaar bëgg suba ndax damay dem Touba. wala ndax dama am gan goo xam ne bu doon sama sago nga gaar ba ma yeewi ko collaboration boobu moom la Diomaye waroon njëkkee en assumant sa sa son rôle de président mais Diomaye Faye euh, taxawewul taxawaayu cle de voûte des institutions pour arbitrer li ñuy wax souvent crise yi mën a am entre les institutions parce que moom mooy ci kaw mu yiir gouvernement mu yiir assemblée mu yiir euh, justice bi mais yilifu leen gouvernement bi rek la yilif ndax mooy yilif premier ministre bi mënoon na ci domaine collaboration balaa muy dugg ci yenn yi surtout crise am na premier ministre nee na député yi duma dem ci ñoom di fa def déclaration présidentielle parce que ils sont indignes de ça nee nañu député yi duñ fi nekk après le 12 kon benn motion de censure du fi am président bi yóbbu projet assemblée nationale pour lu jëm ci conseil économique social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales ne nañ ko fa jëlee député yi nga xam ne ñoom seen régime moo sa sampon loolu par cohérence de choix politique ne ko ñun jàpp nañ ne institutions yi baax nañu kon projet ba ñu rejeté ko réaction épidermique premier ministre mu ne nañ dàq ñooñu président sax d'ailleurs ak ngoon dina jël décret ban réew la am loolu que da ngeen xool fii ak ngoon euh, ñii dañ am leneen lu ñu tal dul ay motion de censure ñu toog ci ngoon gi président jël décret convoqué session extraordinaire dugal ci ay maanaam bagaasam en réalité bu fekkoon ne président Diomaye Faye dafa am maanaam vision wu walla bëgg-bëggu bëgg defar. Euh, maanaam session extraordinaire pour lim ci def LFR euh, benn projet de loi pour lu jëm ci droit de l'homme comité bi ak lu jëm ci ratifier benn traité ak digal ci DPG parce que jàpp na ne comme ñëpp xam nañ ne ñoom ñoo waxoon ne bu ñu modifier règlement intérieur dañ dugal DPG ñu ne nañ ko ci defaale rek. pour sàmm seen kàddu. mais loolu c'est à la suite d'une décision prise par l'Assemblée nationale boo xam ne seen prérogative la maanaam mooy rejeter texte. pour ñu fayuwante ak ñoom ñu def loolu est-ce que président Diomaye boobu bis boobee taxawee ne taxawaayu président dafa taxawaay taxawaayee ku nekk ci wetu premier ministre muy wax moom président lan la war a def mu topp ko ci loolu ba def loolee. kon da ci gis ne Sonko mooy digal Diomaye muy def. bu ko digalul de li Diomaye def moo ko wax ndax ci moom lañ ko njëkk a déggee man de ba ma nekk ci wetu ab lay Wade. danañ daan nas ba lépp pare te kenn du xam ne président war naa jël décret bu décret bi génnee daal la ko nit ñi xam mais naka laa mun a nekkee man wala lu ma jege jege président wala premier ministre lu ma jege jege président de la république ngeen toog def seen réunion même de sécurité wala réunion de cabinet président ne lii dañ ko war a dogal donc pour ñu ne ko dogal nu ñu def ñu ne dañu war a jël décret ma génn taxaw ci rajo yi jël conférence de président dana jël décret ngoon pour def lii loolu ban la problème la boo xam ne il faut que ñu régler ko moo tax jomaa euh, Diomaye euh, war naa continuer di assumer mission bi nga xam ne moom la ko Sénégalais yi mooy nekk président de la République mu nekk clé de voûte des institutions waxuma ne euh, à quoi que sert yi Diomaye démissionné naa ci Pastef secrétaire poste Pastef bi bu fekkee ne chaque fois li nga xam ne mooy bëgg-bëggu président wu Pastef ci loolu lay yóbbu Sénégal mu ngi mel ni ba tey mu nga biir Pastef de doxal la waa Pastef bëgg par rapport ak adversaire politique yi nekk en face député yi bu ñu leen di wax ak ñoom wala ñu wax leen député Sénégal yi wala assemblée nationale da ngay dégg ñu naan député benn bokk yaakaar. Mm-hmm. wala député Pastef. am fu ñu leen féetalee. am nu ñu leen xeebee ba xeebaale ci seen ños parce que tudduñu leen directement mais député yi la ñu wax. Mm-hmm. Euh, euh, xas yi ñu leen di xas député yi lañ koy def. ba gis nga bërki démb sa benn naataango day dégg naa porte nañ ko plainte euh, xamoon naa ne fi lay mujj euh, wax yu ñaaw yooyu ñu yëkkati jëmale ko ci ay député yi li nga xam ñoo nekk benn Bokk Yaakaar parce que loolu mooy seen culture kon euh, lettre bi Diomaye bind mënoon naa ñàkk mënoon naa nekk ci téléphone mënoon naa nekk ci audience mais comme nekku fi mënoon naa nekk ci téléphone bu jëloon téléphone woo maam Diop ne ko président situation bi daal nii la demee te gis naa ne coow mu ngi commencé bari man de bu doon sama sago ñu def DPG bi le 13 maam Diop tontu bii mu tontu ko ci lettre bii ma gis ci communiqué. Hmm. communiqué bi ma gis ci après lettre bi ak seen réunion bureau kon nit loolu la koy tontu mooy rafet na dinañ ci ànd ak yow pour ñu def ko le 13 donte euh, sañ-sañu ban bis lañ koy def ñun ñoo ko moom te loolu maam Diop mu ngi koy rappeler ci communiqué bi mu def. Diomaye amul benn sañ-sañu fixé datu DPG. assemblée moo ko voilà am na sañ-sañu wax assemblée premier ministre day def ci DPG ñu tënku ci session bi nga xam ne moom lañ ko war a defee bis ba nag conférence des présidents rek moo ko mën a moo ko mën a moo ko mën a tànn heure ba conférence des présidents rek moo ko mën a tànn. délai huit jours bi ñuy wax c'est obligatoire aussi. déedéet. naka la mën a nekkee obligation. lan la article 97 wax l'Assemblée nationale doit être informée doit être informée huit jours avant la tenue de la séance loolu bu ñu ko waxee kan lañ ciy jox cër l'Assemblée nationale doit être informée avant la tenue huit jours avant la tenue de la séance dédiée à la déclaration de politique générale. pour député mën a pare. merci pour Assemblée nationale mën a pare loolu. ku am sa sañ-sañ ñu ne may nañ la fukk juróom-ñetti fan pour nga préparer bu la neexee nga préparer ci ñaari fan. su la neexee nga préparer ci ñetti fan bu la neexee nga ne ñëw leen pare naa. bu loi bi bindeewoo noonu waxuñ ne. Euh, il faut que ñu am huit jours balaa ñuy tenir déclaration de politique générale kenn waxul loolu. dañ ne l'assemblée doit être informée. d'accord l'assemblée a été informée. les délais de huit jours assemblée moo ko mun a gérer gouvernement mënu ko imposer ne ko da nga koy def ci sept jours. munu ko def mu da nga koy def le 9 munu ko wax da nga koy def le 10 munu ko wax da nga koy def le 11 munu ko wax da nga koy def le 12 mais mun na ko wax nañ koy def le 13. assemblée bu ko neexee mu ne man mën naa ko def le 6. kon Amadou Mame Diop bu ko neexoon mu gàntal li président. Diomaye bien sûr xanaa sur lettre bi nu ko bindee. élégance républicaine. ak démocratique ak bëgg jàmm. waaye mu ànd ak leneen. ji nga bu fekkee ne Sonko li mu wax wala waa Pastef yi li ñuy wax. naan DPG ak du fi am Sonko du ñëw ndax balaa le douze dañ leen dañ dañuy tas assemblée bi. Hmm. fi ñu toll euh, ma kii nu muy def damay sénégalais yépp at loi constitutionnelle article cinquante cinq ne président dafa war a dem def euh, premier ministre dafa war a def déclaration politique générale bu ñu ko falee donte sax loi bi ñu tëggaat nañ ko ñetti weer lañ ci defaat ñoom fi ñuy sukkandiku ci article quatre vingt boobu. deuxième alinéa parti bi la waaye premier alinéa bi ci lu mu nekk le premier ministre doit faire la déclaration présidentielle dans avant trois mois ci trois mois yi est-ce que respecté nañ ko xam nga respecté wu loolu mooy benn deuxièmement Diomaye mi nga xam ne moo wax assemblée bind leen ne leen dana ma bëgg ñu def ko le treize. yi moom ci boppam moo wax premier ministre ne ko da nga respecté l'article cinquante cinq gàcce ngaa laa ma foofu ci moom parce que au moins foofu fi ko Sénégal yi doon xaar def na responsable jeune au moins wan na ko danga nga koy defi c'est la première fois waaye bu ñu demee ba ci biir maanaam ñoñom moo xam premier ministre la moo xam waa parteem jañ ko ci ne nañu tas assemblée le 12 parce que mën nga koo tas moom ci boppam mooy troxal institution de la république yi. moom président Diomaye moom président Diomaye te gëm naa ne euh, nguur jarul loolu te bu ko defee it. wàcc na àndam boo xam ne dootu ci yéeg dootu fi ci yéeg ba illaa yow mi diini parce que dafa décrédibiliser boppam moo tax gëmu ma ne gal mën na cee am ndax c'est trop flagram kon ay la yiwén comme assemblée nangu nañu waaye waaye et puis DPG déclaration de politique générale man de lii laa bëgg a yore réew mi mais lu ci jar bis bii laa ko mën ak bis bii laa ko mënul du ma ñëw ak dinaa ñëw par force nga ñëw ak nañ ko def bis bii nañ ko def bis bële war naa yomb d'autant que déggoon naa fi ca weer yële ñu ne seen déclaration présidentielle pare na. Ah, premier ministre dafa ne woon moom moo gën a yàkkamti sax dem assemblée. n'est-ce pas kon kay ko kay buñ ne la acca loo xam ne da ko yàkkamti pour wax gaa ñi lu ñaaw li ñu fi nekkee woon wala euh, échec bi ñu am ak yow programme yi nga am xam ne moo gën loolu kay warul indi problème surtout koo xam ne dañu la koy defal tribune la premier ministre yi fa jaar yépp dañoo profité ci tribune boobu pour à la limite jaayu Idrissa Seck Moustapha Niasse moom boo ko seetee amoon na fa sax xaw a jàppante ak majorité socialiste yi mu jege woon Idrissa Seck ñëw fa lañ tuddee ay góorgóorlu euh, ñeneen ñi fa jaar ñëw Amadou Ba ak ñeneen motion de censure waay waay nga ñëw nekk premier ministre ñu may la occasion boobu mais loolu warul xul jarul xoox jarul xeex. Hmm. d'autant que fa nga jëm am nga fa quatre-vingts députés yu ànd ak yow quatre-vingts. Hmm. bu fekkee werante la mais ña nga àndal mën nañ laa weranteel ñu naan la doo ñëw ak da nga ñëw ñooñu xanaa yow yow yow ñoo ànd. bu fekkoon ne assemblée bi dafa mel ni sax comme temps wu PS wala temps wu PDS cent vingt députés cent quarante hmm. députés. sur écrasé majoritaire ñu ne waaye wax jee fa lay gën a bëree waaye wax jot jottali jot sa morom lu ci indi jaaxle ba ne duma ko fa defee ñàkk a naw 83 députés yi féetee 82 députés bennoo bennooy mooy ñàkk a naw 80 députés yi àndoon ak moom ci Yewwi askat Wi ak wàllu. Hmm. wala du dëgg. da nga gis ne kon euh, premier ministre. dafa la dem ci ni leen di waxee kay wax wax ju ñaaw rek laay dégg mu jëmale ci assemblée ci député yi député yoo xam ne. te yoo xam ne euh, c'est vrai am na fu mu waxee dëgg ndax député buy wane ubbi sa slip di ko wane am na assemblée député buy dóor jigéen boo xam dafa ëmb am na assemblée ay député yu këf keesu voté yéeg ci taabul yi fakk micro damm ko am na assemblée mais ñooñu ñëpp ay député am lañ woon maanaam moom moo leen jiitaloon bu ñu leen di fal c'est vrai bu leen neexee bu leen xase moom am euh, euh, def na peut li ko war parce que am am na lu mu leen war a xase am na ñeneen nag am nañ tooxi doon yi ñuy def am nañ seen comportement yoo xam ne c'est pas élégant am na du cëru assemblée nationale mais euh, jëm naa ne dañ leen fal sénégalais yi ñoo fal député yooyee maa ngi dégg nit ñi naan wooye assemblée dañ ko fuuri jëlee pour teg fa ay député yoo xam ne dañu compétent dañu nangam député majorité moo koy fal ku am nit mooy falu député de c'est pas parce que bu fekkoon doctorat la ñuy laaj wala agrégation pour nekk député ok y a pas de mais fii li ñuy wax mooy carte mbooloo ñi am mbooloo jàng nañu ñu ay Sénégal la ñuy représenté mm. nit ku ci nekk la nga am nga mën a demee marché te ñoom ñëpp ci yem la preuve euh, maa ngi xaar bañ dem prochaine législature maanaam prochaine élection législative naka la la waa di def seen député yi ñu yor maanaam ñi nga xam ne ay suppléants la ñu woon yàlla dimbalee leen bañ dem assemblée nationale mm. maa ngi seet nu ñu leen di def buñ di buñ xanaa ñooñu war nañ leen mën a am ci ñoom tuuti kersa ne ah ñii di jàpp nañ ne buñ di dissoudre duñ ñëwaat assemblée de parce que entre temps euh, Diomaye président taxaw na comme coalition euh, ñu baree bari ngi daw riir jëm nguur gi hmm, sénégalais yi ñoo faloon député yooyu nag sénégalais yi ñoo fal président bu mel nii dañ koy nangu fii ak cinq ans waaye président boo xam ne premier ministre moom mooy génn ne président lii lay def mu def loolu loolu ñun ñoo ko tànn suñ président la ni justement ci loolu premier ministre keroog wax na ne bu ñu yeggee le 12 ñii dinañ tal leneen lu dul nekk ay député assemblée nationale. Hmm. lim ci junj mooy certainement dañ koy tas président woote DPG le 13 alors bu président bàyyee assemblée au delà du 13 te premier ministre waxoon le 12 loolu itam dana indi tuuti réeróo. ci seen déedéet réeróo seen affaire la ñoom ñoo ne ñoom ay comme Brook Sow Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye comme Sonko Diomaye mooy président te joxe na kàddoom askan yëpp di ko dégg. réew mi naroon na am problème ci ay la onze ak dina dem ak du dem ak lu mu naroon jur bu nit ñi fàtte ni foog naa ne fii laa la ko waxee woon. Mm-hmm. coowal motion de censure moo indi woon la crise de 1962. oui entre Senghor ak Mamadou. te bis bi gaa ñi tànnoon muy le 11 septembre ci la gaañi ñi songoon les euh, euh, Twin Towers yi nekkoon États-Unis daaneel leen. muy muy oh, muy muy muy bis bu doy waar. mu nekk bis boo xam ne symbole la ci catastrophe pour l'humanité Sénégal war ci def DPG boo xam ne premier ministre bi nee na du ma dem assemblée ne ko da ñëw te li xeeñ bi ñuy voté euh, dissolution au conseil des collectivités territoriales ak euh, conseil économique social environnemental ñi ma gisoon ñu mobiliser dem assemblée nationale bañ dàq leen. Mm-hmm. lu raw loolu mun naa am. la fi xewoon ci diggante euh, bi ñuy def. modification constitution ne vingt cinq pour cent boo ko amee war ngaa mën a gagné. la xewoon buntu assemblée nationale entre waa euh, ku jéegi ak ñoom partisan wu Farba Senghor yi mën naa xew bu demee nag ba président jël responsabilité am ne may président dama koy tàccu. ngir yàlla na des ci loolu may président kooku wane ne may président le treize bi nañ def déclaration de politique générale. wañ na loxo assemblée nationale assemblée nangu na li ko dese mooy mu wañ loxo premier ministre mu dem def déclaration politique générale sinon euh, bu weddee boppam jox dëgg premier ministre am bu yeboo mu jël ndomboom googu dell ko bu fekkee ni premier ministre bi euh, euh, heureusement yaakaar naa ne day def wax nii rek mm. fanforonaat comme ni mu ko defee woon ne Euh, du ma dem damay dem ci mbedd bi d'ailleurs def foofu déclaration pour générale euh, convoquer le peuple les intellectuels ak les journalistes génn na ca bii tamit na ci génn na bàyyi ñu def DPG. mu ne lii laa bëgg ñu xam projet bi la ca ne président Diomaye bu bëgg a tas na tas mais bu doon man du ma digal président Diomaye muy tas assemblée. ndax la coow rek la koy jural. te conséquence tas assemblée bi. Euh, fii ak euh, le treize jàpp naa ne dina bàyyi gaañi bañ def ba pare li muy jur ci calendrier électoral u Sénégal li muy jur ci calendrier maanaam euh, de l'État hmm. surtout lu jëm ci budget Sénégal kooku war nañ ko bàyyi xel Abdoulaye Wade yor na fi maanaam majorité boo xam da ko hostile waaye moom li fi gaañ ni ñu ko tuddee rek njomboor daan na woo ñoom tanoor waxtaan ak gaa ñi ci suuf. di naxante di naxante bu amee loi bu mu leen proposer gaa ñi ñëw waxtaan ceeg moom ñu seet nu ñuy doxalee fii tamit je pense que Diomaye eh, warul yàkkamti surtout que moment bii c'est pas favorable pour ñoom y a beaucoup de coow yu leen concerné yoo xam ne buñ ci demoon élection législative xale yaa ngi nii dañu leen waxoon. Hmm. am lu ñu leen digal lu bari mu am ay ay ay tolof tolof. jakartamaan yi. xale yi nga xam ne ñooy lal ci mbedd mi e, marchand ambulant yi e, xale yi nga xam ne dañoo xam ne Macky Sall moo yàq réew mi ba dugg nañ jël ci gaal gi ñuy kon mm. ne di jël ci gaal gi di dee ci gaal gi dañoo xam ne jën yi jox nañ ko jaay nañ ko e, tubaab yi tey kilo jën kilo jën <laughs> laajal ñi nga xam ñoo dem marché parce que man damay dem marché. <laughs> damay dem marché bitim bitim réew laa demoon bi ma ñëwee ki liggéey yi mu ngi may dégg. dafa maa mm. woo ma laaj ko lu am marché maanaam yaraax maanaam euh, kasaw junni la ma ko jaayee kilo sëdd quatre mille huit cent doraat ñi ko jotoon am lu raar trois mille huit cent lañ ma wax te dafa nekkoon rek loo xam ne muy mu ne ma lii daal moo fi am quelques dix kilo la pour nga mën ko jël mais imagine loo xam ne prix bi dañ doon ay deux mille deux cent sëdd bi trois mille trois mille deux cent maximum des fois sax deux mille huit cent bu tuuroo kasaw mosul dépassé trois mille trois mille cinq cent léegi mu ngi ci junni. ndawal bu xar ak bu yàpp it yokk. loolu moom comme man peut-être sawaruma ci yooyu. Mm-hmm. man Afrique jën moom laa gën a bëgg. <laughs> donc damay jox exemple rek ci li ñu ci géej gi. Mm-hmm. wala nga dem yaraax ñoom seen bopp ñu ma ko wax gisuñu sax koy jënd. Mm-hmm. ki ne nee na ma am na koo xam ne mu ngi ko yoreel ñetti euh, dépense xam nga lu ñu tey ñetti dépense. ma ne ko loolu moom tekki mu ne ma non day doon jël jën mais fayagul ba tey. ma ko mais kii jël jën mooy lan mu ne ma gars yi ni ñuy jëlee saako ceeb ak diwlin ca boutique ba weer wu dee ñu fay mu ne ma noonu la ñuy jëlee jën man foogoon naa ne quand même Sénégal yi dañuy dem jënd jën. Euh, ñëw togg ñëw togg cest à ñi nga xam ne mareyeurs yi ak femmes yooyu xam ñooy transformé am ci seen ci am borom gaal yi jël seen gaal mu euh, xaalis bi tourné mu ne ma déedéet dañuy ñëw euh, fay lañ leboon weer wale lebaat pour mois prochain. comme ni ñuy duggee comme ni ngay jëlee sa ravitaillement noonu la ñuy jël ravitaillement jën. loolu xaw ma démb laa ko door a xam pour te dire que la situation est tellement compliquée contexte bi métti na. Hmm. li waroon mooy ñu ñu ñu delloo si xel yi bañ a nekk ci situation de conflit amul njariñ. Hmm. loolu rôle Diomaye la heureusement lii mu commencé nii maanaam ak lettre am hmm. war na ko gën a accentuer naxante ak